mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki nga xamné yena baxo and ak ñun ci seen site internet bi di al khadimiya ci mission bi di al lahu wal qalam don émission bo xam ni dañ ko bind kat yi bind ci yoonu mourid euh, mo xam ñi bind ci lak français wala ci arab wala ci wolof tay ñu dellu wat ci fan fanweer ak ñaar ngir and ak kenn ko xam doonul ñuy présenter ci dëkk bi di borom xam-xam di gëstukat di bindkat di at docteur sëriñ xaarim silla mu ne fa yéene àndal tey ci jataay bi ngir jàngat benn téere boo xamante ni jotoon na ko bind ba génnoon na ci jamono yële weesu xam naa ngir bañ a guddal dañuy jox euh, sëñ docteur mu nuyoo ci biir nuyoo bi mu defaale présentation boo xam ne na ci tënk lenn ci ay jaar-jaaram ci wàllum njàng ak lenn tamit ci téere yi nga xam ne jot na ko liggéey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 lay nuyu te di la dalal ci sa émission bi nga xam ne moom nga baaxoo maanaa ànd ak sa bokki daara yi di nuyu bokk yi nga bokkal liggéey bi yépp ci xadimiya waaye di am mbégte itam bu baax nag ci eh, maanaa daal dalal gi nga xam ne daalal ngeen ko di leen ci sant bu baax a baax ci ji war a waxtaane <clears throat> lenn ci liggéey yi nga xam ne dañ ko doon def ci wàllu xam-xam comme ni nga ko waxee rek ñun sunuy jaar-jaar ci wàllu xam-xam mooy comme rek ni ko bokki yiñ mbokkal daara yëpp bu baaxoo def ci barab bi ak barab yi nga xam ne ci lañu cosaanoo te mooy jaar ci jàng kitaabullahi al aziz muy alquranul karim ba wattu ko wala miin ko ñaar yooyu moom lañ baaxoo def ci daara yi yàllay defal nañu tawfiix ñu jaar ci suñu daara yi way jur ci Mirina Silli e, ba faraba fa tabarakallahu yàlla defal ñu ci tawfiix ci kitaabullahi ñu jàng ko ba wattu ko foofa nag lañu tàmbalee di jàng xam-xam ci Daaru Salaam si li kër Serigne Mouhamadou Diop Astou ñooy faral di tudd lu bari mu nekkan borom xam-xam bu ràññiku lool géeju ci mboori xam-xam yépp fa jànge lu baree bari nag ci eh, li jiitu ci sunum njàng gannaaw bi lañ doog a ñëw nag tuubaa ci kër sunu maam Serigne Abibu e, nag mottali fa waaye ci jamono yooyu comme niñ ko baaxoo def doo yem ci jenn daara doon nañ boole daara yi suñu abibu ak daara yi suñu alxaaji mbàkki jaxate ñaar yooyu mooy yi doon fréquenté bi ñu noppee itam ci njàng mi jàngale nañ ñeenti at ci école yi sëriñ cheikh yi ahmadou mbàkki yi gannaaw bi nag lañ laxas e dem bitim réew maanaa sakku ji xam-xam jaar arabie saoudi lañ jëk jaar at miñ eh, fa jëk nek comme dafa nekkan ci digg année scolaire bi et dafa nekkan ci digg année scolaire bi lañ fa ag motax amu ñu inscription dañoo no bindalan rek ay lettre yoneen lu ko ci jangukaay yi ñuy xaar ba école ubbi en attendant nak ñu amoon tawfiq cheikh aziz ben bass man ak muntaxa jatara ak Bachiru Lo ak Xaadim Lo ak Alxaaji Lo waa kër si Moussa Abdourahman Lo eh, benn baas yabal nu Makka eh, ci wakiilam bu ñuy wax Abdul eh, waaw wakiilam bu ñuy wax maa ngi fàtteeti tur bi sax waaw Abdul am Amit yaakaar naa Seylaan moom lañu booleel pour mu luyal nu fa ñu inscrire ci daarul addisul xayri daarul hadis al xayriya eh, nga xam ne tey eh, maanaam moom day jàngale ulumul quran ak ulumul addis ci an tarixil majalis comme ni ñu ko doon jànge fii ay mag ñoo ko fay jàngale boo fa demee nag eh, ali aliyu amir la aliyu amir saylaani <laughs> waaw moom la ñu boole lan léegi nag biñ ko fa defee ba année bi jeex am ñu ñu jël ci ñun am ci ñoo xam ne jëluñu ma bokk ca man ak xaadim loo ak alaaji Muntaxa ak euh, Bachir lañ jot jël ñoom ci jaamiyatu imam waaye ñun fi ñu déposé woon dafa satire ca laa dellusee mën a Égypte <coughs> fa laa jànge at mi ma ma demee ma def sama defaat bac dugg kuleetu charia wal xaanoon xismu charia islamiya ba am sama euh, licence ci charia islamiya loolu mooy bu njëkk bi li ci des nag euh, ba tey mën na maa continuer gannaaw bi nag euh, amal naa yéene <clears throat> sax mottalee fa def fa dirasatul ulya ci xismu fiqul buxaaraan ba def naa sax ñaari at parce que moom enseignement théorie bi ngay def euh, ñaari at boo amee mention bien nag doog a doog commencé bind teesu magistrat thèse boo xam ne magistrat lañ koy tuddee waaye moom it daanaka diir ba nga cee def day xaw a yàgg lool loolu moo tax sax daanaka ma faf yamale foofa njàng ma daanaka bi ñaari année yi préparatoire yi jàllee rek ba ma war a bind ma gis ne li muy jël ci man ci temps day bari te comme amu woon bourse eh, aide laa aman bi ma amee licence ñu ñu ñu dagg edd ba bu ma naree continuer nag di aventuré wuwaat ci loolu te li may lijjanti di ko dunde Europe laa koy lijjantee ci pendant <laughs> période vacances bi kon foofu dem Europe goga jëm fa naf-nafal ba motali day gën kon lolu euh, moy danaka sabab si tax ma bayyi fofa dem Europe hmm. bima demé Europe itam comme ni ko xamé ci la inscrire euh, ben gi ñaari at yu njëkk yi comme langue il faut comme da ngay wara def sa thèse doctorat ci langue française bo xam du won sa langue jangoko won fokk kon da nga def effort touti ci laa demee ci université Poitiers ci xism bi nga xam ne eh, maanaa dañ fay jàngal ñi nga xam ne dañoo ñëw pour préparer eh, lu mel noonu mm-hmm. am njàng français écrit lañ leen di jàngal loo xam ne dana la permettre boo noppee moom da nga mën a eh, maanaa li ngay li nga war a bind da nga ko mën a bind ci sa loxol bopp <laughs> loolu liñ ko fa defee ñaari at ci la ñu dellu si nag inscrire ci E, maanaam e, université wala institut bu ñuy wax INALCO waaw INALCO <coughs> daara la woon joo xam ne bu njëkk fa lañ daan préparer almustasrixoon hmm. mu ngi tuddoon institut national de langue et civilisation orientale la woon hmm. bu njëkk mboolem ñi ngay jëm mu mustasrixoon yëpp muy euh, orientaliste yëpp foofu lañ leen daan préparer mooy ñi nga xam ne tey seen euh, langue ak civilisation bi aju ci lañ fay jàng loolu léegi nag ñee aju ci l'islam ñee aju ci chinois kenn ku ne am na loo kii mais lépp lu aju ci langue ak civilisation la lañ fa daan jàng gannaaw bi nag eh, lañ ko élargir ba nga xam ne nag maanaam langue daanaka ak civilisation lañ fay jàngale nga xam ne fii ne boo demee am na département langue wolof boo xam ne culture wolof lañ fay jàngale ay professeur di ko di ko yor donc booba nag la mujj daal di ñu transformé ko mère université bu mag nag boo xam ne tey maanaam lépp loo xam ne lu ñuy jàng ci université yu mag yi nag euh, dañ ko fay jàng am ci ay cours yoo xam ne sax dañ ko da ko bokkale ak Sorbonne nga xam ne dafa mujj yu kii ko mel ni mook Sorbonne similaas am seen diggante am ci kii yoo xam ne Sorbonne lañ koy defee am ci ño lu waa Sorbonne di def ci haute étude yoo xam ne ci foofa lañ koy defee foofa kon fa la ñu fa la ñu ñu mottale sunu jàng. waaw fa la amee sunu doctorat ñoo ngi njëkk a am. fa la ñu njëkk a def sunu eh, sunu maanaam DEA ci un an eh, muy muy étude eh, approfondir nga xam ne ñoo ngi ko def it moom ci waaw fa la ko njëkk a defee après ñu continuer parce que booba DEA bi ñu ngi ko def ci la communauté mouride en Europe rek. Mm. lañ ko defan léegi nag gannaaw bi nag lañ ko élargi def la communauté mouride en Occident. nga xam ne dafay ëmbale États-Unis mu gën a yaatu mooy doctorat bi waaw <coughs> ok jërëjëf sëriñ docteur ci leeral yu am solo yooyu day mel ne niñ baaxoo defal doomi soxna yi rek muy jàngal leen téereb yàlla bi di alxuraanul karim hmm. ginnaaw bu jàllee ñu jàngal leen njàngum diine hmm. muy njàngum majalis ginnaaw bi nga ci jaaree ba jàll nag hmm. ci nga dugg ci école yi ngir mottali sam njàng ba egg ci fa gën a kawe hmm. ah, xam naa day mel ne jot ngaa liggéey liggéey yu am solo ci yoonu murit hmm. ci ay teer yomte ni jot nga ko bind am na ci yu jot a génn am ci yomte ni xëy na génn ko hmm. tey nag nag ñu tànn ah, téere bi nga xam ne mooy ah, mouridisme ak immigration waaw muy téere bu am solo immigration yaakaar naa moom <laughs> comme que junj nga ci lu mel noonu sax ci biir. Mhm. jot nga cee jaar xëy na danga nga ko mën a traité bu baax a baax. Mhm. kon xam naa li ñu njëkk laaj rek mooy lan moo tax nga tànn thème boobu. Mhm. bind ci téere bi ak lan moo tax tamit nga bind ko ci langue français. <coughs> li tax ñu tànn thème bi lu kéemaane la <laughs> parce que ñun bi ñu ñëwee. yàlla dogal euh, sunu benn xarit bu ñuy wax Babacar Cissé moo ñu yóbbu. ci professeur bi nga xam ne moo ko yoran DEA ñu di wax Guy nikola nga xam ne mi ngi bind thèse am moom ci dynamique de l'islam au sud de Sahara kon ci l'islam en Afrique occidentale ci la bind thèse doctorat am xam Afrique lool bi ñu ñëwee nag moom dafa aman eh, ki njëkk a encadré ci kuy def euh, troisième cycle mooy ku ñox wax Moustapha Diop benn sénégalais boo xam ne moom it eh, bi noppé yalla daf ko xir ci mu euh, muy bind ci vie associative bu immigré yi di ci bind ay article diko ko publier ci ay journaux ak i revue léegi nag euh, ci bir lolu comme dafa am mana euh, communauté migratoire sénégalaise dañu am particularité ci bir association muy daïra daïra mu nek association à caractère mana religieux bo xamné tay sénégalais ñoko am mu di ca ah, publier ay articles surtout nag ci daayira murid yi loolu nag mooy impressionné profam boobu mu gis ne lii daal ku ci defan thèse dana am solo bi ma ñëwee nag moom xamul ne sax murid laa xam na ne Sénégalais laa rek mu ne ma pourquoi pas nga bind ci maanaa la migration mouride parce que phénomène la bu yees te bu am importance la bopp yaakaar naa mën nga ci indi lu bees lu kenn mës ta indi ah ma ne ko man sax yàlla dogal na man ci commun murid laa bokk te itam damaa xam immigration bu baax a baax mu ne ma ah, kon kay <laughs> tabarkalla loolu kay ci loolu kon mooy li tax ma tànn ko ah léegi nag xam nga comme ci université française la moom kon it français nga koy bind maanaa loolu moom eh, ba ma jógee fële rek ba ñëw France rek France moom mënoo faa def comme ci université ya nekk yëpp université française la léegi loolu moo waral il faut nga obligé loolu sax moo tax ma ne la moo waral bi ma namee def loolu il fallait nag ma def ñaari at nag pour fexe nag ba mën a def loolu ci jéem koo taqale ci langue bi mm-hmm. <laughs> doonte du sama langue ah, loolu kon mooy mooy sababu français bi waaw loolu moo tax ma doon ko jàng pour mën a mën koo def ci kii mm-hmm. <coughs> dëgg la jërëjëf def naa xam tamit téere bi yan jamono nga ko bind waaw xam nga maa ngi ko bind ci maanaa diggante ay xam nga 90 1999 laa laa ko soutenir xam nga étude bi diire bi yëpp parce que mu ngi nekk xëy na maximum cinq ans daal quatre ans cinq ans boo boo boo boolee dirasatul ulya bi yëpp. loolu lay doon maanaam li tàmbale ci dañuy tàmbale na xam nga moom ci DEA bi première année bi. Euh, euh, ba foofu lool lépp boo ko seetee à peu daal ba bi ma soutenir dépassé wut euh, kii cinq ans yi waaw waaw cinq ans yi. Hmm, méthode bi kon xaw naa diire tuuti. liggéey bi xaw na diire xaw na diire waaye dafa nekk lu lu lu kii. loolu sax moo ñuy indi ci li nga doon laaj ci deuxième question bi muy méthode bi. Mm-hmm, méthode bi waaw <coughs> mm, muy méthode bi ñu sukkandikoo méthode bi eh, lu am solo la pour xam ko ndax eh, eh, xam nga bu dee ci min naa iya mawduiya mm-hmm. bu ñuy wax méthode bi muy mawdoox bi ci boppam xam nga mu mouridisme dañ lay wax ne la bu dee ensu dañ lay wax ne la comme bu lislaam nekkan euh, kër am néeg la ci bu dee ab dëkk kër la ca kon nag fokk nga wax ñu euh, ci sa méthodologie il faut nga indi taxawaay bi immigration am ci l'islam d'abord parce que ci loolu ci la ñuy xamee lan moo taxawaay taxawaayu mouridisme ci migration lan moo tax mu am particularité boobu ñu wax ne kon eh, eh, lan mooy li li liy motiver ci dans lislaam loo xam ne mooy motiver maanaa maanaa nit ki mu immigré wu ñu wax ne loolu am na quatre volets léegi yoo xam ne tey lu ci nekk wala sabab muy dawaafin yoo xam ne ñaare bu amee e, jullit bi dañ koy recommander mu immigré benn pour rawale sa diine boo demee foo xam ne e, mënoo faa dund sa diine parce que am na yu la menacé wala lu la dañuy recommander nga rawale sa diine alxuraan wax na ko yaa ibaadi inna ardi waasia wa iyaaya fa'buduni xam nga defal nañu film sax ca yowmal xiyaam ñi nga xam ne tey bañ nekkee sawara te di leen laaj lu leen fa andi ñu ne fañ nekkan dañ faa mëntoon a jaamu yàlla mu leen alam takun ardullahi waasiha fa tuhaajiru fiiha kon loolu bu amee rek loolu mooy mati beneen bi ci des mooy jóg ngir tasaare ji xam-xam ah, ah, ah, risaale islam mooy immigration boo xam ne da ngaa déplacé wu jóge ci barab dem ci barab boo xam ne l'islam yaatu fa nga dem fa uniquement ngir tasaare l'islam ngir wax ñaare loolu alxuraan ñëw la ci lu bare bare wax na ci lu bare fardu kifaaya la nag hmm, wal takkun minkum ummatun yad'una ilal xayri ak ballixu an walaw aaye loola loola loola bu ñaareel bi e, mooy e, loo xam ne temporaire la mooy immigration boo xam ne temporaire la mooy fi nga nekk boo demee ba la nga fa soxlawoo ci xam-xam mënoo ko faa am et l'islam day recommandé nga gàddaay dem wuti xam-xam mën nga faa def ñaari at ñetti at ba dix ans comme ni ñu doon def waaye nag boo noppee laxas bi mag ñi daan def laxas dem sàkku ci xam-xam mm-hmm. alxuraan ko falaw laa nafara min kulli firqatin um taifa li yatafaqahu fi diini wala yunzira qawmam isaa rajaxoo ilayhim la'allahum na hmm. ah mais boo noppee na nga dellu siwaat hmm. mooy tey laxas gi mag ñi daan def hmm. gàddaay dem ci barab saalum def fa ñetti at wala ñeenti at wala juróomi at ba noppi dellu siwaat bu ci biir réew mi wala gànnaar léegi mooy lii étudiants yi doon def étudiants yi nun ñi da ngay gis koo xam ne dix ans am na ko ci biti yoo xam ne jaarut Sénégal wala bu ñëwee it ci vacances lay doon ay weer la fiy des am ci ñoo xam ne sax fa lañ takkee soxna ba seeni doom màgge fa loolu bari na ci suñu morom étudiants yi kooku saaru gàddaay la woon mais mu àqata hmm. kooku it ba tey ci mën bu mujj bi mooy bi tax nga xam ne bu ñuy wax immigration sax dañuy jàpp ne ci la xel yi dam muy gàddaay pour wuti teraanga hmm. fi nga nekk dem nga fi dem nga ba vraiment daal li nga fi soxlawoo ci teraanga hmm. Euh, joo suturloo pour a ah, pour sàmm sa ngor ak si diine mënoo ko fi am islam dafay recommandé nga gàddaay dem foo ko mën a amee kooku wax na ko wala si jaala lakum al arda dalula fam suufi manakibi a wa kuloo min risqi i wa ilayhi nusur kon ñeenti bala yii benn bu ci nekk nag ci biir étude bi joxe nañ ci maanaam exemple bu ci am boo xam ne yonent bi dund na ko wala saxaaba yi lool kon moo lay wan kon ñun itam ci sunu sunu kii kon ci wàllu wàllu wàllu wàllu étude bi kon ñeenti volet yii mooy yi nga xam ne moom moo ëmb sunu étude bi ñu doon def. parce que communauté mouride bi nga xam ne partie intégrante la ci islam fépp fu mu dem ña nga fa fekk ñu composé communauté ba du génn ñeenti ñii. ku jóg ngir lii wala ku jóg lii lii ku jóg ngir lii buñ booloo nag loola lépp nag mooy caractériser li nga xam ne mooy dëgg-dëgg. Eh, immigration murit ca foofa ndax da nga fekk ñeenti ñi ñëpp kenn ku ci nekk lii tax koo jóg loola kon boo seetee étude bi kon loola la ëmb léegi beneen bu dee ci euh, euh, méthode bi nga xam ne mooy ci collect source yi kooku ñaar la xam nga loo am na comme une partie boo xam ne histoire la ci biir étude bi et kon te am na ci histoire yoo xam ne ay siècle la kon am na ci loo xam ne mënoo koo xam am ci lu wér lu dul da ngaa dellu ci source yi nga xam ne ñoo ca bind loola it biñ cay delloo euh, dañuy comparer bu fekkee dafa am li ngay soxla da caa am ñu ci wax ñaar wala ñetti wax dañuy compare seet par rapport ak seeni argument ak seeni sukkandikukaay bi nu ci gën a doy ñu wax ko waaye du tey nag ñu signaler ne am na yeneen ya ca des bu dee nag li nga xam ne tey wékki la maanaa du lu ñuy dund la loo xam ne xëy na eh, bi mu jàllee yàggut te ko fekke woon ñi ngi fi donte lu jàll la dañuy dem directement ci ñoom laaj leen nan lañ ko dundee woon bu dee li nga xam ne nag mooy li li li lu bees li ñuy dund te mooy dëgg-dëgg li étude bi kii kooku ñaar la ñuy def mooy dañuy dem suñu observation bopp dem sur le terrain gisal sunu bopp déggal sunu bopp waaye du tey it ña koy dund itam ñu laaj leen ñoom itam histoire seen fii fan lañu fan ngeen bàyyikoo avant ngeen di ñëw lu ngeen doon liggéeyee lu jiitu ngeen di ñëw bu ngeen ñëwee fii yan coono wala jafe-jafe ngeen njëkk a gaa jànkoonteel lan lan ngeen mujj lan moo tax ngeen mujj ci lii loolu lépp tey dañ leen koy laaj boole loolu kon loolu mooy li nga xam ne mooy anam yi ñu doon fexee ba am source yi li ci aju ci méthodologie bi ñu sukkandikoo ci ñaar yooyu mm. kon mu des yaakaar naa contenu bi <laughs> Maodo dëgg dëgg yaakaar naa ci d'après bu ma <laughs> bu ma déggee kon li ci des nag mooy téere bi ci foofu mat maru téere bi macha mm-hmm. allah kon day mel ne sëñ docteur <laughs> mm-hmm. leeral nga ni nga xam ne noonu nga doon jëlee maalumaat yi nga soxla woon mm-hmm. pour bind téere bi leeral nga tamit xeeti immigration yi am. Hmm. mooy li motivé nit ki ba tax muy jóge ci dëkk. dem beneen dëkk. Hmm. Euh, comme ñeent yooyu nga leeral daanaka yëpp rek. Hmm. benn bu ci nekk boo xoolee ci yoon murit da ngay gis ne ñiy gàddaay. di dem ci yeneen réew yi loolu moo leen fa yóbbu woon. dëgg la koo xam ne benn day dem ngir rawale diineem. comme ni ko yonent bi alayhi salaatu salaam defee woon. wala koo xam ne day dem ci barab ngir sàkku ji xam-xam. wala koo xam ne day dem ci barab ngir yaatal woote bi lislaam wara koo xam ne day dem ci barab ngir sàkku loo xamante ni dana ko am lu mu mën a dundee. dëgg la muy lu am solo loo xamante ni. Hmm. Euh, leeral nga ko ci anam goo xam ne jàpp naa ne képp ku ko doon dégg danga ci mën a jariñu bu baax a baax. Hmm. xam naa nag moxtawal kitaab. waaw loolu moom jàpp naa ne mooy lii gën a yaatu. waaw loolu moom fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu téere bi nee naa la deux parties la. Hmm. première partie bi dañ cee leeral maanaam rôle bi nga xam ne. immigration am na ko ci tasaare lislaam ci Afrique xam nga ñun ñëpp dañuy dégg ñu ne islaam et immigré yi mais les commerçants ñoo ko tasaaroo commerçants yu ay immigré lañu woon depuis huitième siècle et jamono yooyu dafa tasante ak maanaa lu baree bari ci ay naar yi gàddaayee ci penku surtout ci Bagdad ci dawlatul jamay dawla umo yooyu ñëw ñëw Afrique du nord ñëw Afrique di nord muy ci boori Algérie ak Maroc. Maroc surtout nag am na ci ñoo xam ne ba ñuy gàddaay maanaam dañ leen a forcer dañ leen a dàq. Mhm. muy alxawaarij yi mhm. ñi nga xam ne ñoo ànd ak Sidna Ali te gannaaw bi ñu wan ko gannaaw. Mhm. ba mu defee pacte ak mu Muawiya ñu ci baree baree bari daw dawla Umayya da leen a dàq ñu ñëw làquti si fii ci ci ci Afrique di nord ci Maroc ak Algérie. sañ ci fa nag ay dëkk. yoo xam ne bokk na ca Sisalmasa bokk na ca Jidila bokk na ca Malkuus bokk na ca euh, Taïr ay dëkk yu mag ñooñu nag ci Taïr boobu nag dafa nekkan centre commercial bu mag boo xam ne fa la immigré euh, daan bàyyi ko ña dëkk di bàyyi ko di ñëw gaawo ci ci ci ci Mali ci huitième siècle di jënd marchandise di indi gaawo bu noppee jël ci or bi yóbbuwaat foofa hmm. léegi nag tombe ak ak beneen ville boo ñuy wax Ghana Ghana mooy euh, maanaam capital royaume boo xam ne euh, mi ngi nekkan diggante Niger ak fëlew Sénégal moo ëmban Mali ak Mauritanie ak Sénégal même gana gu bees gii ñuy Ghana gi ñuy wax bokku ci woon Niger sax ak Nigeria bokku ci woon Ghana tur wi ñee dañ ko ab waaye gana ñetti réew rek la ëmban muy mëratëni ak Sénégal ak ak Mali léegi nag foofa itam nekkan centre bu mag foofa kon ci huitième siècle ca la fa dugg mais ñooñu dugguñu fa pour tasaare islam dañ faa dugg rek pour commerce pour yaxantu léegi nag mais biñ demee nag ba ci biir nag surtout nag ci fin neuvième ak ak dixième siècle dañoo daje ak buur bu ñu wax euh, tàngane maanaam euh, tàngame muy ku am ouverture nag yaatal leen lool ñu am fa seen jàkk comme na ko ni ñu yaatale suñu bokki taalibe yi foofu ci am fa seen jàkk di dund seen lislaam ñoom ñoom commerçant yi. ñoom commerçant yi. Mhm. léegi nag ci biir loolu e, tax nag ci biir e, woote wu ñu de propagande ñu waaye nag ci biir comportement bi ñu am. Mhm. ak rigueur bi ñuy bi ñuy wane bi lislaam wane ci jaay nga xam ne looy jaay lu ne dañ koy nat mhm. ci benn masir bu dee lu ñuy kii itam wattu lay doon soo xam donte bateex lañ ko def wala përëm wala yooyu dañ koy xam exactement ne boo ma nattali li nangam. bu dee mètre it noonu bu dee bor dañ koy bind ni ko islam jàngalee. ak solidarité bi bi am di dimbale way néew ji doole ca asaka ak sarax yaak yooyu ngir taalif seen xol ak yooyu. Mhm. loolu lépp dafa tax am ñoo xam ne dañoo dugg volontairement ci islaam ci loo xam ne sax kenn propagande mais mais mais njàngale islam moomoo waaye nag yaatuwutoon parce que ñooña borom barke yi borom barke yi lañ nekkalan parce que borom barke yi lañ doon jaay borom barke yee ko soxla kon masse populaire bi islam bi àggut ci woon léegi nag bi ñu demee ba ci euh, onzième siècle mille trente neuf ci la ku ñuy wax Yaxya ben Ibrahima dem Makka ci biir fi mu jaar ci ay Égypte ak ak arabi Saoudite ci la yëgee ne ca lay bi mu waxee ña fa indi islaam lañ ko ne ñooñe nag minorité lañ wax ko it seen aqida du aqidatu ahlu sunna mu ne ah mu ne waaw ñu ne ko ah aqiida ahlu sunna ku ko yor foofu mu ne ah réew mi gën a jege fu ko yor daal afriqiya lañ koy wax ngeen koy tuddee mooy actuel Tunis ne ko am na jàngukaay bu nga xayrawaan yëg nañ ne moom ña ngi fay jàngale rit malikit ak aqiidatu ahlu sunna bi mu ñëwee nag mu daal di dem ci am Amranul Fasi recteuru université bi laaj ko mu boole ko ak ku ko boole mu xool xool gisut ko mën a dem mu ne ko am na sama ancien élève euh, étudiant boo xam ne euh, foofee nga dëkk ci côté yooyu la dëkk fu ñuy wax Malkuus waaw ku ñuy wax ibnu zalu eh, wàngam nu salu mu ne ko nag euh, moom xëy na boo demee dana la turweel ko de bi mu demee mu boole ko ak Abdoulaye Yacine ne ko moom yaayam Doricine euh, Saara la Abdoulaye Yacine nag moo ñëw ci ji ci jiddi laa ànd ak moom taxawal fa daara ju mag di jàngale rit malikat ak aqidatu ahlu sunna wal jamaa nag bi yëf yi ñëwee ba bari riir wut ci ko nag ah xaarij yi gis na lii manaas la yu dal ci kawam xaw ko jekku nag mu retiré wu nag ñëw ci île bii ci filo Sénégal def fa ribaat muy retraite spirituelle loolu moo indi turu mu mu rabitoon léegi nag ba ñu demee ba ba ba préparé seen bopp ba jekku nag la def contre attaque daal di euh, doom daal di gagné Abdoulaye Yacine jël Afrique du Nord daal di koy daal di koy occupé wala boog dominé fa ci 1055 Aboubacar mi nga xam ne nag moo desan moom ci côté ganna bi côté Afrique noire bi mom continue continuer continuer ba 1077 ci la ci la dogo gagner Ghana kooku entrée officielle bu islam sunnite ci Afrique waaw euh, islam sunnite ci Afrique ci 11e siècle la fi rentré mais nak islam depuis e siècle la lolou lepp ko ci bi itam euh, rôle bi nga souverain Mali ci quatorzième siècle muy Kanka Moussa bi mu demee aji dafa indi mbooloo mu bari ci ay conseils yoo xam ne arab lañ naka noonu bi ñu demee ba ci quinzième siècle jëm seizième itam euh, ki ñuy wax Askia Mohamed Touré ba tey moom itam demaat aji Makka indaale lu bari ci ay professeur ba mu ñëwee nag moom moo fonde université islamique bu Tumbuktu ak institut islamique bi nga xam ne moom saaru université bi nekkan jenne ay maanaa nag xam-xam bu yaatu nag tasaaroo fa léegi doom ji itam moom itam ci seizième siècle moom itam e, e, tabaar la moom it e, taxawal lu lu mel noonu ci ci kii bi nga xam ne ñoom seen taxawaay boobu daal su waree Mali yi noonu ba loolu nag ba ci quinzième siècle nag même ci ci jamono as askia askia askia Daoud ah même askia Mohamed ci la tombé ak Abdul Karim Muxayli wala Maxili bi nga xam ne moom it. et la ko def kooku nag moo fa indi et tarixatul xaadiriya moom moo moo ko jox Cheikh Ahmad Bekkaay al Kunti yi bi nekk ci ca ca Tumbuktu kooku kooku foofu la tarixatul xaadiriya duggee foofu ci lislaam ci ci ci Afrique léegi nag euh, di gën yaatu surtout nag ci dix-huitième siècle et tasanteeg euh, Cheikh Sidi Mokhtar Kunti yi nag moom gën koo vulgariser tombe ak tiijaan yi itam ci période boobu la ñëw foofu la tarixa duggee ci biir Afrique waaye am na loolu xam ne jataay bi moo ko moo damay bañ mu jël kii waaye am na lu bari lool lu ñu waral a leeral foofu euh, ci ci kaw duggug tasawuf ak duggug ki parce que am na ci ay muxaalataat yu ma dégg ci fan yi yoo xam ne parce que duggug tasawuf tarixa euh, xam naa foofoot lu a leer la ndax ah. bi muy dugg ci Sénégal hmm. mook yi ñoo ànd ah. wala ndax anut ak loolu laa bëgg a leeral xam nga d'après li nga dégg ñuy wax fii ci mm-hmm. fan yii dañ lay wan ne la xam nga su fekkee ne mm-hmm. islam officiel muy islam bi nga xam ne alxuraan ak sunna la mm-hmm. ci onzième siècle moom la dugg Sénégal ak Mali ak ak ak ak réew yu Afrique yëpp ah la fa dugg te tariixa bi fi njëkk dugg moom ci quinzième siècle la dugg kon ñeenti téeméeri at boog walla ñetti téeméeri at yu topp day mel ni kon ci ñoom niñ lay waxe kon julliti Afrique ñu ngi doon dundu sunna te xamuñu tariixa daal lay bëgg wax na la kon tariixa kon bi mu ñëwee dëxiil la ci ñoom maanaam gan la waaw te bàyyiwuñu xel ci ne déet loolu déedéet parce tariixa du jàggee ni Abdul Xaadir Abdul Xaadir Jilaani tariixa am na mhm. ñu bind ko muy tasaw lu mat daanaka ñaar téeméeri at mhm. lu jiitu Seex Abdul Xaadir Jilaani parce que aarisul mu asib yi mhm. mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk a bind ci doctrine tasawuf muy muy muy muy tariixa ak i principe am te kooku mu ngi nekk ci ci huitième siècle la gane àdduna mais li mu liggéey dëgg-dëgg mi ngi ko liggéey ci début maanaam neuvième siècle ci la bind raaya fi li oqoxilaa hmm. téere bi ëpp solo ci téere tasawuf nga xam ne imaam Junayd mooy moo moo moo yar imaam Junayd eh, jàngal ko al muhaasibi mook imaam Ahmad ibnu Hanbal jamonoonte nañ waaw hmm. daa ki ci dañoo wax dañ lay wax sax ne la moom ci ci ci biir euh, euh, ci biir dëgg dëgg dëgg euh, école Ahmad ibnu Hanbal hmm. bi nga xam ne ci alquran ak sunna ci la sukkandiku ci la ci la inspiré wu ci wàllu aqida moom nag moo bind nag ci wàllu ihsaan ba ñuy bindee ci wàllu imaan eh, ilmul aqida ñiy bind ci fiq eh, eh, maanaam islaam faraxu islam bi fiqul islam yi moom nag moo bind ci ihsaan maanaam raaya li uxila muy tasawuf waaw muy tasawuf léegi jàngal ko abdu abdul kii abdul xaasibul junaydi mhm. ci école am la génnee abdul xaasibul junaydi boobu nga xam ne nag ci ci ci début maanaam maanaam dixième siècle mhm. muy neuf muy neuf cent dix ci la commencé taxawal ab école am nag di jàngale principe yi tasawuf boole kook nag di ci tarbiye nag yemut ci théorie bi waaye di ci tarbiye ay nitam nag bañ ràññee leen ci boo tax ñu tuddee ko Seydou Taïfa te xam nga loolu lépp mu ngi am ci et dixième ba tey nga seet ponkal ma neen muy muy Aboubacar Mouhamad al Kalabasi yi Kalabasi yi moom itam xam nga ci moom it ci fin euh, kii dixième siècle la mhm. moom it moo bind a taaruf mhm. ah li ma sabi ahli tasawuf mhm. docteur Xaasim Jaxate sunu moom moom sëñ am satu jaxat ci la def teesu doctoram nga xam ne kon boo seetee taaruf bi li mu ci lim ci introduction bi moom nga fekkan sax ma di ko lire introduction bi maanaam li mu ci li mu ci lim rek ci ay borom yi xam-xam kenn xamul nu mu toll ñoo xam ne bokkuñu sax ak ak mu asibi yi ak ñooñu mm-hmm. eh, bokkut ak ak ak junaydu ak ñooñu ñoo xam ne kenn ku nekk mu wax la nan la définir tasawuf mm-hmm. muy taarifaat yu wute muy taarifaat yu wute yooyu yëpp ca la ko ca la ko andee xam nga loolu lépp kon ah, mi ngi am maanaam ci diggante neuvième ak dixième siècle mm-hmm. te Cheikh Abdou Khadir Jilaani xam nga moom ci onzième siècle la kon tasawuf kon maanaa bi bi islaam di dugg Sénégal ak Afrique kenn mënta wane ne dugaale wu fa tasawuf parce que fekk na tasawuf am bañ bindu ko noonu te ñooñee lan moo ñu wanee du ñu wan ay mutasawifoon wala jël ñoon idée boobu parce que kon du caagee ne rek le quinzième siècle la tasawuf juddu déedéet <laughs> tasawuf loolu mooy li ñu doon leeral foofu dana gën a yaatuwaat ci yeneen jataay waaye ñu xam ne loolu déedéet déedéet maanaa tasawuf mën na mën na maanaa maanaa ñooña du lañ doon dund man naa nekk islam boo xam ne parce que gis nga Ahmad Ibnu Anbal ak Muasib yi ñoo ñoo kii mën na nekk islam boo xam ne parce que tur yi moom tur yi moom même mouridisme mii tey mhm. est ce man mën ngaa fekk benn téere bu sëñ boo xam ne sëñ bi définir la ci jëfandikoo na baatu murid yi déedéet mhm. Mhm. sëñ bi su koo jëfandikoo sëñ bi yaa at baa yi lay wax yaa mu taallixoona ñi taallux ci moom ak ñi ñi ko ittibaax ci moom waaye ba muy tarix même tarixa ci boppam bu koy kii day gën a yaatu tarixu um la yax wala tarixatu ahlilaay wala taraayiqal xaw mi donc kon yooyu ay appellation la yoo xam ne muy wékki bi ak principe yi moom mi ngi fi woon mhm. donc loolu kon moom la ñuy kii léegi nag bi ci ba tey ci biir téere bi mhm. biñ jógee ci ci loolu kon ci ni islaam duggee kon wax nañ la ko ci wàllu ñoo ñooñuy vulgariser ko ba agsi ci mhm. li nga xam ne mooy euh, première guerre sainte nag ci ci bi nga xam ne moo am ci ci kii loolu leeral nañ ko muy euh, muy muy li ñuy wax la muy muy danañu ko danañu ko wax muy jihaadu muy muy muy muy la guerre la guerre des marabouts ci hmm. Nasruddin kooku mooy première guerre bi nga xam ne moo am ci 1673 euh, hmm. la la tàmbale woon mooy première guerre bi nga xam ne moo njëkk am ci l'islam ci diggante Mauritanie ak kii loo xam ne moom it contre ñi nga xam ne tey ay ay ñu ñu infidèle lañ ak nekk na loo xam ne pour contre domination arabe hmm. gannaaw bi amaat na beneen guerre boo xam ne muy Torobe moom itam ci 18e siècle la am beneen muy révolte de mara boudi Kayor contre Amari Ngoore Ndeela bi ñu assassiné Malamine sar kooku mi ngi am 1795 sept cent quatre léegi nag gis nga loolu yépp nekk nag di loo xam ne gis nga xaadiriya di nga daal di ñëw léegi nag tarixa xaadiriya commencé nag redynamiser l'islam parce que tarixa ñooñu ñëpp dañ daan julli individuellement mais travail collectif nag tarixa xam nga ni ñuy nasoo am seen i alkatu zikri am seen benn marjaiya bu ñuy dellu loolu lépp tarixa yi ñoo ñëw organiser nag islaam ci anam boo xam ne nag vraiment dañ koy dund collectivement am leader am kilifa goo xam ne ci ñoom ñëpp ca la ñuy dellu loolu lépp leeral nañ ko foofu ni mu ciy duggee ba ci li nga xam ne tey euh, mooy yeneen jihaad euh, yi ci des muy muy muy muy muy muy muy Cheikh Fouti mhm. ak Maba Jaxu ñoo ñëpp seen i jihaad leeral nañ ko ci téere bi eh, ba bi nga xam ne islam pacifique ñëw na hmm. eh, animé nag par alhaaji Malick Sy alhaaji Ablaye Niass ak Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne nag moom moo sos yoonu murid hmm. bi ñëwee ci mouridisme li gën a marqué liggéey bi mooy le rôle de la migration

bi muy gàddaay di jóge Mbàkke Kajoor di ñëw Mbàkke Bawol lu mel nii tax parce que booba li muy woote par rapport ak situation bi ni mu demee woon Mbàkke Mbàkke Mbàkke kii mënu ko faa doxal waaw mu ñëw Mbàkke Bawol mais xam nga ñun ñëpp jàng nañ lan moo tax mu jóge Mbàkke Bawol ñëw Daaru Salaam waaw muy dem ba gis ne foofa it la mu fa bëgg a dund xat tàmbali na faa am muy li jaxan yonent bi gàddaay mhm. ba bàyyi ko Makka dem Madina loola moo tax mu gàddaayee eh, eh, eh, Mbàkke Bawol dem sañc daaru salaam loola it gis nga ba mu jógee daaru salaam ba sañc Touba it gis nga li ñu lay bind ne la mooy sababu mu jóge fa dem Mbacke Bari mooy bi ñu demee ba nga xam ne ahlu tarbiye jaxasoo commencé na jaxasoo ak ñoo xam ne tarbiye euh, du seen préoccupation mm-hmm. pour mu bëgg nag beddi ko ak ahlu tarbiye nga xam ne loolu lépp kon day dugg ci ñeenti boole yooyu loolu kon ci la sëñ bi xàlle yoon wi leeral nañ kon mboolem seex si nga xam ne ñoo tasaaroo ci biir Sénégal yëpp ci ci quatorze régions yi ba sañc fi lu toll ci ñeenti téeméeri dëkk maanaa wax nañu itam dëkk yooyu rôle bi mu joué sur le plan social économique et waaw et culturel religieuse ak tasaari kii loolu lépp leeral nañ ko ci biir étude bi waaw léegi eh, biñ ci jógee loolu muy première partie bi mm-hmm. ba ba tey wax nañu itam bi fi sëñ bi jógee mooy réorganisation mooy système ko système euh, euh, euh, xilaafa. xilaafa gi waaw système xilaafa nan la demee xilaafa amma mhm. lan nan la demee dëgg dëgg dëgg lan mooy soloom ak ban rapport la am ci xilaafa yeneen branches yi. benn mhm. bu nekk wax nañ xilaafa général ak xilaafa branche yi ci des ak rapport bi ñu am. Mhm. même wax nañ sax maanaam source yi dis mouridisme di sukkandiku pour mën a financer ay projet am. wax nañu rôle économique et politique. et bu marabouts mourides taxawaay biñ ci am wax nañ la place de la femme dans le mouridisme taxawaay bi jigéen am ci yoonu murid am na chapitre bu mu ci am wax nañu Touba euh, importance bi mu am ak ni ko sëñ bi waajale comme mu nekk cité idéale boo xam ne lépp loo xam ne lu lu luñ soxla ci dëkku ab jullit da cee daje naka noonu joxe yeneen dëkk kooku mooy première partie bi deuxième partie bi nag kooku nag mooy igii bi mais kooku it bi ñëwee comme euh, immigration la te mouridisme partie intégrante la ci communauté migratoire musulmane kon premier li ñu def ci introduction bi moy mooy moy moy moy moy histoire générale de la migration des musulmans en Occident mboolem rew yi nek ci Occident yu mag yëpp kañ la fa julit yi tambalé dem ak rew mel mu nek ñan ñoo fa ëpp ci ay nationalité musulmane nationalité yo xam ay julit lañ ak lan moo caractériser seen immigration joxe nañ ci aperçu ba nga am ci idée ci réew yi Europe yëpp ba ñu jeex benn bu ci nekk ña fa njëkk ak nañ lañ fa dundee ak seeni rapport ak ak ak ak ak euh, population autochtone bañ fa fekk yooyu. loola bi ñu noppee génnaat nag andi immigration euh, les immigrés euh, yi nga xam ne originaire de l' Afrique de l' Ouest parce que am nañ seen particularité immigré musulman yi nga xam ne Afrique de l'Ouest lañ jóge te Sénégal bokk ci biir andi nañ ko moom it seen. yan réew lañ gën a bare kan la seen immigration tàmbali ak nan la ñuy dundee biñ noppee andi le Sénégalais ci seen bopp biñ noppee rek doog a andi mouridisme mouridisme it biñ ko andee comme ni ma la waxee ñeenti wala yii volet social bi ndax bala ngaa ne naam nekk fa volet sociale bi lañ ñu wax ne ah si moom ngay njëkk a andi foog nga wax ñii tey nan lañ fi biñ fi accès nu ñu def seen dëkkuwaay nan la demee ci njalbeen ga façon bi ñuy dëkkee. bi ñu noppee et façon maanaam bi ñuy dundee ci seen biir kër est-ce que soppi nañ lañ daan lekk wala biñ ñëwee dañoo roy européens yi ci li ñuy lekk est-ce que soppi nañ lañ daan dëkkee est-ce que soppi nañ seen seen seen maanaam bi ñu takkee soxna seen seen rapport seen diggante ak seen i famille lu ca xew nan lañ consolider li nga xam ne mooy suñuy aada ak suñuy coutume ci wàllu sëy ak yorin ceet yaag ngénte ya ak loolu ak civilisation occidentale bi nga xam ne moom def noo am lu mu eh, exigé nan lañ est-ce que nañ lañ nañ lañ boolee loolu yooyu yëpp leeral nañ loola mais biñ jógee ci loola ci côté social bi leeral nañu eh, li nga xam ne moo ca topp te mooy eh, seen wole économique bi ci ñan ñoo ci façon liggéey yi ñu liggéey njaay mi ñetti façon ñi doon jaay ñiy def marchand ambulant biri bitigu mbagg ñi nga xam ne ci marché yi la ñuy dem marché hebdomadaire yi wala marché luuma yi ak ñi nga xam ne dañu yor ay magasin catégorie yooyu yëpp andi nañ ko andi nañu ñi nga xam ne dañuy liggéey ñiy liggéey ñaari xaaj lañ ñoo xam ne dañ leen a jël ñuy liggéey ci ay fabri wala ay usine ah ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ leen jël di leen fay ak ñi nga xam ne e, seen liggéeyu bopp lañu yor loolu ah, bu dee ci li yor seen liggéeyu bopp pari la ëppee mooy Eh, mooy waaw ñooñi ak ñi nga xam ne dañuy liggéey dinañ fa ñaari xeet lañ muy tailleur yi am na tailleur yoo xam ne si eh, kii eh, turki yi wala français yi ñoo leen jël ñuy ñaw yére tubaab ak tailleur yoo xam ne seen liggéey bopp la liggéey di ñaw yére africain yi naka noona itam bijoutier yi noonu moo moo fa gën a bari ci pour nga xam ne mooy tëgg tëggi wurus mm-hmm. ñoo ñëw tuwaab yi ñoo leen di jël bu dee nag Italie la fa ëpp ci ab liggéey mm-hmm. boo xam ne nag maanaam dañ lay fay mooy ñi liggéey ci usines yi wala lii liggéey ci tool yi nga xam ne ay sasunion la ñuy doon wala yooyu naka noonu Espagne it ëpp ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey eh, ci bu ñuy fay mooy ñi liggéey ci tool yi waaye njaay ma la fa gën a bari ñoom système bi ñuy def mooy ay marché eh, lay doon ak ay fête yoo xam ne par 15 jours lay doon ñuy déplacé wu di fa dem ak ñiy def marchand ambulant ton donte catégorie façon njaayin wa yëpp ak nañ fa nekk loolu lépp wax nañ ko ba mu jeex tàkk loolee ñu wax ci Europe lépp it en même temps bi ñu demee États-Unis it mhm. la même chose naka noonu activité religieuse yi daayira mhm. kër Serigne Touba yi nan la sosoo daayira général yi nga xam ne xalif général de Mouride ko moom ak daayira kër yi nga xam ne dañuy wax Daaru Xudóos Daarul Moxti kër Sëñ Fallu mhm. euh, kër Sëñ Masamba Njenne Baye euh, daayira Cheikh Ibra Fall daayira Sëñ euh, Daaru Asan Njaay daayira Euh, sëñ Massamba Diop sa am et cetera benn ak rapport yi am ci seen biir ak ni ñuy dundee ak daayira yi rôle bi ñu joué ci vulgariser yoon wi ak tasaare tasaare ko yooyu yëpp muy volet culturel bi kon ñetti volet yooyu mooy yi nga xam ne muy social économique et culturel loolu nag réew mu nekk bu ñu demee am na sa particularité yi bopp mooy loo wute ak sa morom feeñal nañ la la wutale ak sa morom bi ñu demee États-Unis en tant que continent wax nañ lii lañ fa étudier même étude bi mais wax nañ li ko wutale ak fi nga xam ne mooy mooy Afrique Euh, ma damaa xamul loola dese ci ci waxtu parce que benn benn benn chapitre bu mujj bi moo ci moo ci des. waaw xam naa de mel na ne téere la bu yaatu rek suñ déggee ni nga defee exposé bi. Uh-huh. ma def naa jàpp ne sax téere la boo xam ne ci côté histoire la gën a jëm dëgg-dëgg. waaw. ak euh, lu jëm ci wàllum immigration. waaw xam nga xam nga foofu bëgg naa fee leeral différence su. Uh-huh. maanaa histoire ak kii xam nga sociologie importance am bi mu am. en sociologie lañ ko bind mais xam nga sociologie li mu wute ak yeneen yi mm-hmm. mooy mooy mooy il faut nga indi histoire mbir mi ba noppi mm-hmm. maanaam da ngay wax histoire mbir mi ba noppi côté sociologie bi nag mooy lii la ko waral ak lan lañ ci mën a jëlee mm-hmm. maa fait historique bi ngay nett de nii la demee mais nag lan moo tax mu demee nii ak lan lañ ci mën a déggee lan lañ ci mën a jàngee loolu nag lañ lay laaj yow loolu nga soxla mm-hmm. mais fokk nga jaar mbir mi fokk nga wax ni nii la demee mm-hmm. parce que lu ci nekk lu ne nag génne nañ ci nag dañ caa génn ay afaax yoo xam ne nag mooy mooy dëgg-dëgg mooy aspect sociologique bi ñu taxan a jóg parce que loolu mooy moo moo waral sociologie dëgg dafa gën a yaatu parce que foog nga jaar ci histoire mm-hmm. ba noppi nag histoire boobu danga koy da nga kii fi ne boo duggee ci biir benn bu ci nekk maanaam duñ laaj rek yow ab jaaykat nga danañ la laaj fa nga jóge ca dañ lay jaaj fa nga jóge ca ca ca kokki wala fa nga jóge ca ca ca ca ca ca ca Louga fa nga jóge ca fële loo doon jaay loolu lan moo la poussé côté boobu maanaam mooy aspect social bi nga xam ne moom la ñuy indi nga xam ne kon day boole histoire ak sociologie toujours waaw am na ñaar yëpp la ñuy boole ci ñaar yëpp ci biir téere bi waaw ñaar yëpp lay boole maanaam fokk moom historien bu ko liiree di jàpp moom rek la ñu bindal mm-hmm, mm-hmm. léegi sociologue bu ko liiree jàpp ne ki nga xam ne moom économie lay seet mm-hmm. ak loolu day jàpp ne moom mii kat moom dong la bindal parce que aspect économique bi moom moom da ko ciy gis. dañuy feeñaare moo tax day ay ay options yu bari lay ëmb. macha allah kon daal day wane téere bu yaatu la boo xam ne. waaw bu yaatu la. Euh, xam naa li ñu dese ci waxtu sax bëreetut. Mhm. téere boo amee solo noonu. Mhm. doon ñaari xaaj. Mhm. ñu boole ko ci benn téere. ndax doon na téere bu te ni mool nañ ko ba mu jàpp ni ci marché bi. boo ko soxla woon man koo. am loo ko mën euh, amee téere bi bi ñu ko bindee ba mu àgg. kër eh, Thioub bi nekk recteur université bu dakaar moom laa ko jox ne ko nga toppal ma ko xoolal ma ko bi mu ko xoolee ba mu àggal moo ne téere bi am na importance boo xam ne kii moom université bi ñoo koy jël en charge ñoom ñoo koy móol mu daal koy jël jox ko presse universitaire ñom ñoko guéné ñoko guéné ñoko guéné fi ko génne na moo man dañ ma caa jox képp may ay ay kéeg yoy way presse universitaire ñoko guéné diko jaay parce que dañu ne kii daal document la bo xamné parce que même wa CNRS sax dañ may bind di ma wax na ma parce que document bu fiable ni parce que na toa bi ay santion lañu santion lañu ñuy def man bima koy bind da naka at mu nekk réew mu melni ki Italie at mu jot 40 villes dana ko visiter lu néew néew Espagne lu géew néew dana fa visiter une trente Allemagne danaa fa wisit lu gat lu mat euh, ay huit France lu mat ay dix sept États-Unis lu gën néew néew cinq états yoo xam ne damay dund ak ñoom ci seen biir kër di gis. pour mën a def diraasa maydaaniya. maydaaniya parce que loolu ab tubaab duñ la ko may parce que duñ xam looy wut mhm. man nag dama cee bokk dañuy dañuy damay dund ak ñoom am na ci loo xam ne soxlawul sax ma dee leen ko laaj parce que maa ngi seen biir di dem ca marché tëdd ak ñoom ci kër gi xam ni ñuy cotiser ni ñuy dundee lépp dama dama dama dama dama ko xam waaw muy loo xam ne yaatu na lool am na partie bu bujj bi nag bu am solo waaye xëy na mën nañ koo jàppal beneen bés parce que mooy euh, mooy les conséquences de la migration nag mhm. Eh, ak problème d'insertion des immigrés moi partie bu mujj bi muy jafe ja mooy jafe-jafe ah, yaak yooye ak bi ci biir réew ba ci ci Sénégal hum. les mu jur am nay maga yu mag sur le plan économique nim mu ni développé réew yi dëkk yi mel Touba hum. ay ay Louga ay côté yu bari waaye nag am am comme comme en sociologie da ngay waxit kii bi am déséquilibre problème de déséquilibre social am na lu mu créer am na yeneen <laughs> yëf-yëfaan yoo xam ne lépp étudier nañ ko ci côté positif bi mais côté négatif bi nga xam ne am na ko ay aspect négatif yi loolu dañ ko ci dañ ko ci leer parce que pour nga être objectif mhm. il faut doo bàyyi dara xam naa daal bu yaa lu yaatu la loo xam ne maanaam lu lu yaatu na lool daal wax dëgg yàlla yaatu na lool leeral nañ ca lu bari fii ne boo boo demee ci partie bu mujj bi mboolem problème yi nga xam ne moom la ñuy dund mooy mooy dafa leer mhm. parce que li waral ñu am ay problème ci Occident dañ noo dawaa ji dana wax de da ngeen di wax seen problème bopp ba noppi hmm. fii tey yéen ñëpp fi nekk hmm. bu dee ci wàllu aqida chia yaa ngi fi hmm. ahlu sunna ngi fi ci biir ahlu sunna suufi yoo ngi fi ñi tuddee ay salafita ngi fi kenn ku nekk ak saw yoon rit yi maaliki ta ngi fi saafiti yëpp ngeen a fi daje yéen ñooñu kon da ngeen am seen problème propre boo xam ne seen biir am ci ñoo xam ne ñee dañuy wax ne maghrébin lañ ah ñee wax ne léegi ñun ay saw kii lañ waa irakien lañ ñii ay turc kenn ku nekk ñii ay africain lañ kenn ku nekk am say aada ak say coutume yoo xam ne tey am na lu leen kii yooyu yëpp dañ ko étudier ba àggal étudier la ci Afrique moom muy africain ñëpp ay communauté musulmane waaye ndax sénégalais yi ak nigériens yi ñoo bokk bi ñu noppee nag wax na l'ensemble de se problème nag face nag ci euh, maanaam eh, euh, civilisation occidentale bi nga xam ne bokkuñu diine bokkuñu ay aada mm-hmm. te nun di gàmmo di tabaski di rey ay xar di di ceetal di def suñuy yëf yëfaan ak yooyu nan lañ koy dundee ak ci biir bii boobu yooyu yëpp traité nañ ko ya ca amee yëpp ak nañ ko doxalee yooyu doog a ñëw nag Sénégal moom itam ci li fi am ah man mu ab immigré ak samay dooy yoo xam ne immigré wuñu samay xiiwal ak samay teraanga ak ni may transféré sama sama sama mode de vie mhm. sama kër sama colog samay soxna samay doom ak yooyu dëkk ak yow mi ma bokkal baay te amuloo loola déséquilibre social boobu mu am nga xam ne eh, bu amut sax ak ñàkk a nawloonte da cay daal di bëgg a am ci sox soxna immigré yi dañuy mel ni seen kiiw bopp lañ. Mm-hmm. ndax nañuy solo ñeneen ñi ci des ne ñoom it ber seen yooyu yëpp tey ak doom yi. Mm-hmm. yi ciy juddoo yooyu yëpp andi nañ loo loolu loolu desi mbir moomu leeral nañ étudier nañ ko lu mm-hmm. yaatu la daal loo xam ne ak. ak. waaw <laughs> ah, jërëjëf xam naa kon day mel ne dañuy ñëw rek ci tomb bu mujj bi. waaw muy nag ban gis-gis nga am ci. Euh, yëngatu yi am ci yoonu murit ci wàll bind muy taalif jamono ji ñu toll ak labiré yi nga xam ne moom ngay jëmale ci gëstukat yi ah, ah, tajaale <coughs> waaw xam nga fi ñu toll wax dëgg yàlla yëngatu bu rëy rëy la xam nga noo am liggéey bi ñu leen ci sant sax boo xam ne loolu bokk na ci finalité bi comme gis nañ ne vingt dernières années yi yoonu murit moom produit nañ loo xam ne jéggi na dayo mhm. lool nag ci langue arabe langue français langue anglais woo xam ne bàyyiwul daanaka benn domaine. lu am solo la loolu moom lañ bëgg a toll sax ci jéem ko dajale. Mhm. Eh, wut ay commission ñu étudier ko ba xam xool contenu ak yooyu yooyu pour bu loola amee sax dinañ gën a mën a xam nu ñuy gën a orienté nit ñi waaye pour l'instant mhm. eh, man eh, li ma gis mooy mhm. li ëpp solo euh, mooy liñ war a jiital ñun. mooy téere sëriñ bi ci boppam parce que buñ seetee science islamique ci boppam muy ulumul islamiyé mhm. et li ko yaatal ba accès ko fii ñenu jiitu woon génération yi ji ay tuuti lañ doon ay risaala bu ndaw mais ñee ñoo ñëw saraako ko ko ba mu yaatu mhm. léegi am na luñ ci jot a def mhm. waaye par rapport ak li ñu war a jot a def yées na des na bu am na lu baree bari loo xam ne ci téere sëñ bi taxqiq nañ ko def ko nii mais dañ ko def ci façon bu bu xaw a bu xaw a bu xaw a yàkkamti tuuti mhm. ba dafa am beneen liggéey dëgg la nag étape bu njëkk bi baax na certifié ko leen lu ci ne mais saraa nag mhm. saraa ko ba wàcce ko mhm. parce que bu ñu seetee Seyxul Xalil du awal ak saani la woon fii ne ba ma mujjee xam ca ba may jógee Égypte est-ce que ci quarante ci ay saraa yoo xam ne sara bu nekk bu ñëwee te kenn ku nekk lool wala tafsirul quran mhm. ñaata tafsir moo am te est-ce que kenn waxagoon ne ne tafsir nañ beneen tafsir téere bu ak pour ñëpp texte bi la mais da nga koy wàcce génération bu def ba mu mooy contextualiser ko mais conceptualiser ko mhm. ba mu dëppoo ak waa jamono pour mu dëppoo ak jamono man dama gis ne léegi loolu daf cee daf cee baax ci ci ci ndaw ñi mhm. ñu gën a jël jël téere bu mel ne wala uqa rek uqa ci boppam maanaam ma des na cee bind maanaa lu toll ni lii uqa principe yi ci sëñ bi andi ci tasawuf buñ ko wan mën naa nekk téere boo xam ne mën naa nekk trois cent page te sëñ bi dafa am téere yu mel noonu boo demee ilhamu salaam fii zabbi andil islam noonu e, nangam fatul manaan fii jawaabi abdourahman noonu wasaa yaaye wasaa yaaye benn bu ne contenu wasaa yaay yooyu rek boo ko dajale woon man nga cee mën nga cee kii léegi nag kon li may conseillé muy ñu gën a e, maanaa bañ a yem rek ci tax yi nañ yem ci pensé sëriñ bi ci boppam ci côté yëpp. ba ci ba ci ba ci euh, ba ci seetalu mel saadu tulaab. shawaahid yi sëñ bi ni mu ko indee. nga xam ne tey eh, leçon bi nga ci jàng la ci jàngal da ngay am leçon naxwu mais da ngay am leçon ci morale islamique ci makaarimul axlaaq loolu itam dafa nekk dimension bu kawe boo xam ne dañ ko waral dañ ko war a kii. gën koo gën koo kii jàngale ko. boole kook inspiré wu ci it ci ñeneen ñiy bindaat tey joxe ay misaal muy méthode boobu sëñ bi joxe nga xam ne lu nekk day am day am njariñ waaw loo loo indi lu ne rek day am beneen njariñ mooy mooy li li ñu li tubaab yox valeur ajoutée loo xam ne da taxu koo woon a jóg mais da caa dolleeku te da daa mel ni looloo ko tax na jóg kon loolu damay conseiller ndaw ñi ñu gën a consacré ci loolu ba noppi di dellu ci ñii leen ñi leen xaw a jiitu tuuti ñu di leen orienté di oriente ci ci ni ñuy def booy bindu tees ban téere nga jàpp ne daal bu ma ko kenn mu la mhm. amit di la di la encadré itam nga seet ñu ca kii ñu di la encadré mhm. ngay dellu ci ñoom boo bindee tuuti delluwaat ci ñoom comme ni ngay defee thèse mhm. ñu jubbanti la mooy tax bu noppee daanaka doo ci sonaat waaw bañ a jaar yoon bañ a beddee ko rek doy loo sa xalaatu bopp déedéet xam ne ki ngay ki lam lay dolli day gën a tax téere bi am am solo loolu laa leen di conseillé maanaam comme bindikat surtout bindikat yu ndaw yi nañuy am ku leen encadré ci kaw tànnal leen. ay Maodo Maodo boo xam ne bii bu génnee penc bi soxla na ko. Mhm. mais buñ ko tànnee ba noppi nag ñu seet ña nga xam ne ca seen xam-xam màcc. Mhm. lañ ca njëkk a bind ak nañ tërale seen seen seen seen. Eh, méthodologie muy manhaj bi ñu wan leen ko lu luñ ca war a corriger corriger ko jox leen ay orientation loolu day yombal fuñ ca toll it maanaa wan leen ko ànd ko ak ñoom mhm. loolu mu mel ni dafa am ñu leen di encadrer ci biir loolu mu mel ni thèse la doon te téere booy taarif la loolu laay conseillé ñi nga xam ne ñooy bind eh, parce que mu nekk mbind mu am solo tey mooy tandiku répé répétition yi itam mm-hmm. maanaa maanaa ci kaw ci kaw bu fekkee ne loo xam ne tey côté bee ñii kenn ci la allahuma lu dul nag approche yi dafa bokkul mm-hmm. bu dee approche yi dafa wuute moom loolu mën naa mën naa am ñii bind ci lii bind ci lii comme ni ñu def ñun ci xitma mm-hmm. ñee bind ci côté approche false kii bi muxaarabaat falsafiye ñu jël muxaarabaat itimahiya loolu kenn ku ne jël benn wale loolu mën na nekk waaw euh, yooyu loolu daal mooy li nga xam ne moom laay moom laay orienté kii bi waaye nag di di <laughs> la ca des mooy e, ñu fexe it nag ba e, ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk kii itam wax dëgg yàlla loolu moom xëy na message bi xaw ma nu ñuy def moom jàll ci ñoom waaye ñoom ñu dimbalee hmm. ñu dimbalee bindikat yi ba nga xam ne ndax bind dafa soxlawoo ay moyens soxlawoo kiis booy bind ak boo bindee ba noppi pour mën ko vulgariser ndax lu baree bari fi ne bind nañ ko mu am njariñ lool waaye mi ngi nelaw ci tiroir yi maanaam mooluñu ko mooluñu ko te xam nga maa ngi wax ci biir xitma mhm. ci di la wax naa la sëñ bi la wax al amalu bil maxloom mhm. amalu bil maxloom nag ah eh, kon dafay nekk eh, yaxta di an yakuna al maxloom moomee lu ñu xam mhm. mais maxlom boo xam ne xamee su génnu ci biir kenn kenn mënu kenn kenn mënu koo jëfee ah maanaam al amal bi mu yaqtadi an yakunal maalum ji loo xam ne loo xam ne ñi ko war a jëf dañ koo xam mhm. li ko wax fil mu mu génn nekk ay téere yu ñu wal tasaaro ko waaye li nga bind ba nopp mu nekk ci biir tiroir bi noonu loolu dafa soxla ay moyens mhm. euh, kon yooyu yëpp daal xam naa ne moom laay conseiller ñi nga xam ne ñoo tollu ci di bind gis waaye nag di rafetlu bu baax a baax nëxda bi ci am ak saxwa bi ci am ak cawarte gi ci am loolu moom maa ngi koy saluer bu baax di ko rafetlu vraiment di leen ci soññ mu nekk fierté wax dëgg yàlla ci ci ci ci man nekk fierte it ci mbooleem ku nekk ci yoonu murit xanaa rek loolu rek laa ciy dolli ci loo xam ne daal muy ñu gën a gën a focaliser daal ci ci téere sëriñ bi surtout yi nga xam léegi E, e, étude ba cee war joxaguñ ko ko. Mhm. maa seet seet ci ci ci ci yu mel ni téere yooyu ma tudd saa yaay aj yu bëy lu ci nekk lu ne. Mhm. E, ñu ñu ñu saraa ko waaye wàcce ko nag wàcce ko ba mu tolloo ak niveau génération bi pour ñu mën cee jariñu waaw waaw parce que loolu mooy mooy mooy njariñul saraa geeg ak yi ñuy def ci téere yi xaw ulumul islam yi bépp noonu lañ ko def. Mhm. pour mu mën a law ba agsi ci ñun. jërëjëf sëriñ docteur ci. ndénkaane yu am solo yooyu ak orientation yi nga xam ne jëmale nga ko ci képp koo xam te ni yaa ngi jug di bind wax dëgg yàlla wax nga lu am solo muy téere sëriñ bi mel na ni ñu bari ñu ngi ciy liggéey waaye nag saraa mm-hmm. ba mu gën a leer mm-hmm. dëppale ko ak jamono nit ñi man cee jariñu mm-hmm. mel na ne moo des ci liggéey bi dëgg-dëgg uh, ndax diraasaat yi moom mi ngi am uh, wax nga tamit mooy takraar maanaam di baamtu loo xam ne xëy na baamtu bi mën naa bañ a am njariñ looloot doon luñ war di moytandiku. Hmm. bu fekkee nag xëy na moom ña ca bind dañoo wuute domaine yu ñu bindee moom subaa loolu dara dara nekku ci. Hmm. wax lu am solo ci lu mel ne saada tullaab doon téere boo am sëñ bi dalay jàngal làkk arab hmm. waaye ci biir mi ngi lay yaraale ci wàllu jikko. ndax euh, exemple yi mu lay jox lépp. da jariñ doon loo xam te ni da koy mën a jëfe wuute ak. ñu ñëk ñam am daanaka dañ naan lay dara ba zaydun zaydu dóor naa xeet yi nga yokk te nii daanaka du jariñ dara dëgg la dëgg la ah, waaw ah, lool nga ne kon lool day wone rek lim waxone ne lam anhu ma lam yufit dëgg ah, la waaw jubluwuma leen loo xamante ni amul jariñ nga xam ne moom léppam rek jariñ la fessé del dëgg la waaw sant nañ la bu baax jërëjëf di rafetlu yaatal gi hmm. tey rafetlu xam-xam bi bu baax baax dëgg yalla toujours mom dañuy ñaan suñu borom gën leen fe yagal deug la ndax bokk ngeen ci ñi nga xam ne royukaay ngeen ci képp ku yëngu ci xam-xam ci yoonu murit alhamdulillah tey di ci liggéey liggéey yoo xamante ni ñëpp ñu ngi koy rafetlu alhamdulillah ci nangoo gëstu ak di ci mm. daj ay coono yoo xamante ni ñu bare bëri at yi nga am tey ji daanaka ni ngi ci sonnee fekkatu leen ci loolu di wane sag bëgg xam-xam tey di wane tamit ne ci tool bi rek nga nekk mm-hmm. fas yéene liggéeyal sëriñ bi ñaan suñ borom gën leen fa yàggal gën leen aar gën leen a sàmm mm-hmm. kon ñu ngi lay sant bu baax di sant mbolé mbokk yi nga xamné ño baxo and ak ñun émission bi di allahu wal qalam mhm. ñi ci seen bi di khadimiya mhm. ni leen ko baxo waxé rek émission la bo xamante ni luñ ko ñenn bay ñenn képp ku yëngu ci bind rek jappal ne bis mën naa ñu dalal la mhm. luñ ko borom xam yi nga xam dañ leena jappé ay mag wuñ ko tamit borom xam yi nga xamné ay ndaw lañ manam dal képp ko xamante ni yaangi yëngu ci bind mo xam muy ci lak arab wala français wala wolof ba ci anglais bi sax buñ ko amé sax dinañ ko jël inshallah taala ah, kon xamna ñu jox la nga eh, tejj rek jotaay bi ñu taggo ba yenen jëmmi jamm waaw nah, kay eh, jërëjëf alaaji serigne cheikh serigne ci caméra bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ni nga leen di sante bu baax ci yitte eh, ak wo gi mhm. lepp lu jëm ci luy dundal li mhm di ñaan suñu borom jappale leen bu baaxa baax gën ah. leen jox nak ay jumtukaay ak moye yo xamne sax mm-hmm. li day mujj nepp soppi sax nek télévision bu and ak li ah. ak ay chaîne ak yépp daal mm-hmm. support médiatique yépp suñu borom mana jaarale ci li ak liggéey bi ngeen di liggéeyal l'islam ak sëriñ bi mm-hmm. ba barkel ko lol ba li ah. ngeen soxla wo lepp ci lu liggey bi laaj jamono laaj ko yalla jappandal len ko e yalla nako yalla def ci khadim rasul ñi ngi sante bu baax di len gërëm bu baax alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu ngi leen di dig benen jotaay ak benen téré ak keneen ci bindkat yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bayatu xayral wara billahi wal khalami li wàcc rabbil wara zillawhi wal khalami